nga xam ne pare na ci làmb ja ma ngay dem ànd ay naataangoom ànd naag ay xaritam ànd ay am di jàmmam ma ngay jël dernière bouteille bi moom Alioune Seye numéro 2 ma ngay sotteeku ndeysaan mbër mbër géejawaay yaa ngi noonu ndeysaan Papa Boy ngi noonu ci wet ga liiru jaara ngi noonu mbaytin numéro 2 ngi noonu ñu ngi naan ko dal rek teey rek Fils de Balla ngi noonu ndaanaan la ci làmb ma ngay léemu ndaysaan boo gisee sëñ Bas nii Alioune Seye di jugee ci cimekaayam jëm ci làmb ja nga xam ne ndam li am na lu mu koy teel nga xam ne victoire bi am na lum ko koy teel ku ci nekk ñaan gi benn la yàlla na la yàlla fay sa xol loolu danañ koy ñaanal ñoom mbëru géejawaay yi Alioune Seye lu yor Lirou Diane am na lu mu ko jox nee na ko saraxe ko bas Aliou ngay dem ci cimekaay ba ma nga jëm ca làmb ja <laughs> ca géew ga la jëm am na mbuus bu mu yor noppi na ndeysaan ñu ngi koy conseillé ñu ngi wax wax yu dëgg ne ko tey amul dara koy wax. waaw ma ngay dem. am na la muy saraxe. joxe na ko daw na. Alioune Seye 2. sëñ Bas Alioune Seye lu muy yàqamti yàqamti. ñàkk jëriñoo ko gën a yàqamti. moom mi ñuy séen ci digg géew ba. ñàkk daa mel ni noppi na. Alioune Seye ngi nee di waaj a dugg ci géew bi. 2. tey nga xam gunge mbër mu di la seetaan ni mu méttee tey ngay xam taxaw ci ginnaaw làmb di seetaan ni mu méttee la dëgër de boo xoolee kanam gi xam ne changé na doomu ndeyam mooy bëre xaritam mooy bëre liet naa mooy bëre moom la dëgër numéro 2 ndaysaan boo ko xoolee nga xam ni ndaysaan am na cofeel goo xamante ne am na ko ci xaritam am na gëm-gëm boo xamante ne am na ko ci xaritam waaye lakk lak sa kàddu gu mujj lan la sa kàddu gu mujj sa xarit sa doomu nday sa lépp nekk ci digg géew bi sa kàddu gu mujj ak moom lan la. booy dafa am yoo xam ne yoo xamante quoi booy ñax yi réew nañ waaw noo dañoo réew nag am na loo xamante ne waruñu ko wax quoi nit ki da ngay sa ndey bu nit ñi respecté sa yaay da ngay respecté yaayu jàmbur waaye yàggatul dara. waaw xam nga. bu ñàkk demee taxaw ba may saaga nday noo am na lu ma métti ñu ne déet waay ay àndandoom di saaga xam nga ne ñu dajee ci ruq du ma saaga de waaye mais amul problème fii la rek yàgg waaw loolu la bi mais yàlla baax na. ok merci. ñaaw na kaay lamb kaf la ak bu dee ñaq moo ko def ñaaw na la dëgër kilifa la ci lamb barki démb dégg tiis bi nga xamante ne am na ko ñàkk waajuram lu mu méttee tey nga saaga ko ci digg géew bu dee ñaq moo ko def juum na mbokk yi bu dee ñaq moo def loolu sëñ Bas juum na juum na juum na. Alioune Seye yàq na làmbam Basirou Alioune Seye yàq na làmbam Alioune Seye yàq na làmbam Bas Alioune Seye de yàq na làmbam oh lii rafetul ci làmb tee leen ko ana service d'ordre yi oh lii rafetul ci image su làmb. lii rafetul jéemaasu lamb awaay sàmm leen lamb ji lii rafetul bas lii yàq na lamb ay waay service d'ordre yi dimbali leen ñu lamb ja yàqu na lamb ja yàqu na bas lamb ji yàqu na oh ay waay yàq nañ bas lamb ji yàqu na oh Alioune Seye de mérité wul Seye 2 mu def ci làmb Alioune Seye 2 li mu liggéey ci làmb musul bëre làmb mu mel nii làmb yàqu làmb yàqu na yàq làmb ji man bu organise organiser lu ñu mën CNG mooy responsable moral lu ci waay di def na ko xam CNG li muy tere sànq yéen presse bi ñoo du ngeen wàcc maa wàcc ñaan ñu may leen mais CNG lii lay bañ sécurité te ku ci dugal sa loxo stade bi dafa am ay caméra dañ lay identifier da ngay dem tëddi kaso amul sax ne ma dem xoolal ku ci gaañ nit dañ lay identifier stade bi moom ak yeneen stade yi te yéen ñëpp di ngeen ci am lu leen leer. moo wax la benn affaire moo wax la benn affaire waaw booy ñàkk a ñu yéenee sànq bi Sa Thiès ñëwee déglu rek dama lay wax rek fee lañ di saaga di indi problème xoolal yaa ko bàyyi bu ñëw ñu ko constaté affaire yi. parce que lamb ji xam nga mi ngi nii boo fajalee sa bopp gis nga la ciy fekk mais booy bi gis nga mi ngi ko fekk xëpp ko galaaj. lan nga ci responsable dafa vague lan nga ci. président wala man CNG. man mbër laa ko moom. man déglu man loo waxal entraîneur. xaaral ma ni la ko non waaw mais man maa rek dëpp man man maa rek dëpp loolu ñun CNG xamuñ d'accord xam nga waaw déglu xam nga lu CNG le président de l'écurie celui qui a signé le contrat muy manager bi à part ñooñu li des yëpp on les reconnaît pas donc ma am lu ma ko laaj. seen dirigeant yi kan moo ñëw ko moo yéen daal bëri na fi delloo leen seen équipe bi ci kaw bàyyi ma mbër bi ci biir. sinon quand la sanction va tomber ce sera sur toute l'écurie. man li des mais président su loolu mënul am la sanction sera très lourde sur les deux camps et on situera les responsabilités et vous connaissez mon tempérament am na commission règlement ñoom ñoo jël yenn décision mais ñoom li leen président CNT wax buñ ko deful sanction bi sera pour tous les deux camps li leen wax dafa leer dañ nañ ko indi responsable écrit effectivement le président du CNG mi ngi nii Alioune Sarr c'est sur responsable de la lutte bu problème amee am na droit woo responsable écrit mooy manager wala business wala président écrit mbër mi ñu xool blessure bi xool bu ñu defee constat bu dee lu am mbër mën na bëre ñu bëre bu dee mënuñ bëre ñu jël décision yi war comme loolu leer na mais nag bu ñu demee ba état jël police mu koy lii du yoon Abdou ay ay kilifa ngeen dañ leen di daan ñu bëre mais bu ñu leen jàppale da ngeen jàppale seen bopp lii rafetul parce que ay tubaab ñëw def reportage lii honoré wul Sénégal tey lii baaxul nañ ko bañ parce que tey bu ñu demee ba police di ma autorité may bëre am na lu ñu xeeb mooy non violence mais pourquoi ñuy def lii man dama bàyyi sama kër ay sama njaboot ñëw. waaw dafa fële te amul woon amul woon dañ ko jàpp. dañ ko jàpp ngeen kii lay jàpp. non jàpp nañ ko gars jàpp nañ ko. jàpp nañ ko. dégg nga day miir eh. jàpp ko dafay miir. waaw. bu yéene chargé de la commune. yóbbu leen ko ci Cimekaay. ah yóbbu leen ko ci Cimekaay. léegi mu dem ah mu dem. loolu soxla woon ndax. yóbbu leen ko ci Cimekaay. Père Omès ngi lay. maa ngi lay fay ji lii nga gis ci làmb ji tey noo ko dundee. non dëgg ñaaw lu rafetul parce que sport mérité wu lii surtout làmb nga xam ne ñoo ko moom suñu culture mais boo gisee li tey ñii dul bëree accompagnant ñoo indi lii mais mbëri ënduwuñ ko tey euh, war nañu mën am ay jàngat permettre au CNG tey mu génne ay notes de service. ces notes la permettait mbër yi au lieu que ñuy jël seen gàllaaj jógoon ci bi ñu ne ko seen cumbukaay bu arbitre bi ootee seul l'entraîneur ak mbër bi ñoo dugg bi c'est une ñu bëre MMA da gis dañ koy tëj entraîneur sans dugg mbër bi est-ce que mooy amul amul amul amul yenn yi donc loolu war nañ permettre tey ñu yokkaat les grilles de protection yi nekk stade bi comme ça wàcc bi di yomb parce que lii boo gisee wàcc bi activité yomb na fi ñu taxaw nii CNG dañ ko war a mën di tere te bu ñu ko defee nit ñi gàññi leen ci mais mooy yoon comme ça enceinte bi à part les arbitres le corps médical les responsables du CNG yi xam ne ñooy organisé ak les entraîneurs donc je crois que kay war mën toogaat mbër buy dugg indi sa entraîneur tout le reste seen jumkaay tey loolu dina manqué galaaj ñi def ci ak géew bi incident c'est pas la première fois maintes fois am na fi ay sot na de galaaj dàqante même am na Demba Diop am na Iba Mar am na a ba mbër gaañu ci Garga Mbossé door nañ ko fi xeer donc ah du du du jëkkewul tey mais mesure nag il faut mu tombe ci kaw askanu làmb ku ñu yar suñu bopp toog ci tribune yi bu seetaanee bu jeexee ñu ñibbi. mais kon dañ ko doon bay bayal ndax Modou Lo Eumeu seen gis nañ fa loolu xeex ci ñëpp ñëpp ñoo xamante ne ñuy sotti mbëri gàllaaj ñoo indi loolu tey xale bi sotti na euh, Alioune Seye 2 gàllaay xamul lu ko sotti xaw ma saafara la xaw ma saw la xaw lu mu doon mais sotti na ko ba Alioune Seye mer est-ce que Alioune Seye noonu la waroon doxale no xam nga euh, mbër am na fu muy toll du am maitrise bi nga xam te ne tey loolu dina ko war mais te am na fu mu doon toll waaye xëy mu gérer loolu mais ba tey mën a yàq lamba parce que nit koo xam te ne corps étranger la jóge feneen ñëw sotti loo xam ne xamoo lan la comme ni nga waxee nga parfois saga laaj dépassé ay millions aussi loolu tooñ la donc mbër bi nga xam te ne tey xëj na moo ko sant ou bien keneen sant ko ko wala moo ñëwoon moo ko sant boppam tooñ na làmb donc dañ war a sévir sanctionné ko Aliou Seye xam nga gaañu gu mu gaañu ni mu toll mais tey yàq na carrière Aliou Seye yàq na aussi journée ak Khadim Samb yàq na aussi euh, journée yi xam te ne tey amateur ñoo seetaan si ko surtout que le ministre est là donc ñaaw na dafa ñaaw dafa ñaaw en toute objectivité ñun suñu bopp bu ñu yor suñu bopp ci sport mën a avancer. li ma mooy ñi nga xamante ni lamb rek lañ contre suba ñu am beneen étiquette buñ tafal lamb. mais dama ne jiili lii un bon sportif du ko def sportif dëgg-dëgg du def déjà incident am na léegi ñu ngi oote pour arbitre bi ñëw beneen mbër ñëw ànd ak au moins une dizaine de lutteurs par lamb donc y a trop de laxisme mbër yi nag il faut ñu xam ne ne sport la. du leneen lu sport quelques minutes la mu jeex ku nekk dem accompagnant yi lii doon tëb di daal fi il cinéma dong lañ fi def defuñu fi leneen tëb di daanu fii di xëbbu suuf si xeer tout ça encore ça sert à rien surtout boo koy aidé da nga koy aidé sur la progression aidé ko sur le résultat aidé ko ci une performance mais tey boo koy boo koy aidé ci ay agressivité mais je ne crois pas que dañ dañ dañ kanam donc il faut que jàngat mooy yaraat suñu bopp yaraat jikko yaraat cër comme ça bu ko defee sport dina avancé ñëpp ngi jooy affaire sponsoring tey lii bu image bi nii c'est donc ñun ko war a ëmb suturaal ko defar ko ba mu jekk comme ça ku ko gis na ko ba ko donc tey li am nii vraiment tey c'est désolant mais c'est uniquement par des ay quelques éléments yoo xam te ne xamuñ dara ci sport xamuñ dara ci làmb ñoo koy indi parce que tey à deux mille dollars man nañ bëri mbër bi nga indil ay cinquante mille bouteilles ah, alors que il n'a que cinq minutes de préparation yow dimbalewuloo ko nit ki pour nga dimbali mbër ko donc nga indil jox ay quatre mu mu jeex mais il faut faire quinze minutes vingt minutes ñu dagg seen xaalis à quoi ça sert donc erreur yi dañoo bari service d'ordre kii di service yi sauvegarder booy sauvegarder da ngay prévoir la sécurité prévoir la sécurité y a la sécurité bien sûr mais un policier ne peut pas être partout pour sur un benn benn nit mënul nekk fii mën nañu bëre cent policiers cent mu am un policier c'est parce que c'est le selon les comportements et les mentalités donc loolu tant nga amu ci tey ñu toogoon fii mais ñi ko indi ñeneen la ñoo xam ne ni boo demee ay wëndëg lañu duñu sax sport maa riirandoo gisandoo xo yi kese moom moo leen ci neex maa def lii maa def lii maa def lii maa def lii alors que dafa ñu ci dara bëri bu ñu ànd ko fekkee voilà merci beaucoup. père maa ngi lay nuyu. fils maa ngi lay làmb ak liñ ko daan teg gàkk gàkk yi doon wax ci làmb tey làmb jëfee nii ban ban gis-gis nga ci am. Euh, lii yàgg na ci làmb c'est-à-dire làmb dañ ko moderniser léegi. ba war a changé te ci changement boobu lañ jëm mais lii yàgg na ci làmb saa à nañ jël matuwaay xam ne jamono ja muy am booba xale yi demewul woon nii ci làmb booba affaire yi gën sa amul woon ci làmb mais xale yi léegi bëgg nañu làmb mais dañ ko bëgg a soppi xam nga li am ci géew bi tey tey suñu borom moo ñu suturaal rek ñu fonk suñu sport bi mais tey lu ñaaw mënoon na fi am tey mais nag ñu ngi sant yàlla rek na sécurité bi gën a doy xale yi xam ne lii ñuy def seen i frère lañ koy defal soo àndeeg sa mbër teg ko ci yoon buñ ko daanee nga dem bu daanee nga dem sport fort la mais lii am tey yéema ne nan ñaan yàlla boo ëllëgee bu mu amati ci kàttanu yàlla. jërëjëf jërëjëf.